soo leen ñu gisaatee tey tamit ñu toogaat fii c'est parce que ci biir collectif bi ci biir aar lu ñu bokk ci biir ñoo lànk am na ba léegi ay question yoo xamante ni mi ngi continuer sans solution am na ba léegi ay problème yoo xamante ni autorités yi yéeguñ ci yàbbi ci ba léegi bokk na ci ba léegi ñu ngi nemmeeku la privatis la privatisation de l'hydraulique ci gox yu fasantikoo yi rawatina dëkk kaw yi waaye tamit bokk na ci lu ñuy dénoncer ba léegi spoliation foncière bi nga xamante ni mi ngi am parce que gàddaay ak euh, Ndingler peut-être ñoo ci gën a siiw waaye bu leen fàttee Guéréo ci la bokk Kignanbour ci la bokk Djilakh ci la bokk buggu ñoom ñëpp dañoo am ay problème mu suuf bokk na tamit ci problème yi nga xamante ne dajale nañu fi tey muy le droit des travailleurs yi nga xamante ne kenn respecté wu ko ay liggéeykat yoo xamante ne dañoo salfaañe seen àq ak seen yelleef mun nañu lim liggéey les les travailleurs euh, bu ABS mën nañu lim waa PCC yi mën nañu lim les travailleurs de l'autoroute à yi nga xamante ne seen ak ak seen yelleef kenn respecté wu ko boobu ba léegi. mën nañu lim également ñi nga xamante ne ñooy étudiants yi seeni situation ba léegi kenn réglé gu ko muy ñu nekk biir UVS muy ñu nekk ISEP bu Diamniadio muy les le cercle des étudiants du privé ñu toll ci 40 000 étudiants yoo xamante ne. tey lu ñuy laaj lenn kese la delluwaat ci salle de classe yi waaye tamit ñu énumérer leen seeni i seen allocation de bourse ak seen aide sociale ak étudiants yi nga xamante ne ñoom lañu ñu ci société bii ñuy wax AFUT Canada loolu moo waral loolu moo waraloon ñu joxoon ultimatum ci conférence de presse bu ñu mujjee def fii état du Sénégal ne ko après tabaski bi jafe-jafe yii ma fi lim sànq soo ko respecté wul soo ko soo ci utul solution ah dinañ génnaat ci mbedd mi wanewaat suñu nakar pour que nga mën a jël li nga xamante ne mooy question yi en charge loolu moo waral d'ailleurs lundi bii ñu weesu ñu yebal suñuy ñetti ndaw ne leen dem leen au niveau de la préfecture de dakaar ngeen déposer lu ñuy wax une lettre d'information parce que nu sommes dans un état déclaratif il fallait que ñu déposer lettre d'information boobu moo waral. suñu camarades yi demoon fa pour déposer lettre d'information bi pour marche bi nga xamante ne ñu ngi koy wàcc vendredi bii di ñëw gannaaw suba yemook fukki fan ak ñeent ci weeru août bii ñu nekk itinéraire bi nag nii lay demee buntu grande porte bu université Cheikh Anta Diop de Dakar la ñuy commencé jaar fi nga xamante ne mooy siège yu OMVS jóge fa jaar fi nga xamante ni mooy siège orange bi nekk ci kaw VDN bi. jóge fa jaar fi nga xamante ne mooy siège UVS bi nga xamante ne moo topp juste ci siège orange bi waaye tamit avec comme point de chute maanaam jeexalee ko ci fi nga xamante ni mooy le ministère de la culture. ci kaw loolu ci kaw déposition après déposition boobu nga xamante ne def nañ ko ci euh, pour marché bu ñu war a amal démb suñu ndaw signataires yi nga xamante ne ñoo signé woon boobu le woolu nañ leen woon ci commissariat bu point E pour enquête. Euh, bi nga xamante ne mooy enquête moom la ñuy wax enquête de euh, de routine pour ñu amal ko foofu te am nañu yaakaar ni marché bi aut dinañ ko autoriser te autoriser nañ ko sax parce que ba léegi jotaguñu benn notification bu ñuy won ni marché bi dañ koy interdire maintenant problème yi nga xamante ne listé nañ ko fi sànq ñun waa aar lu ñu bokk ñun waa ñoo lànk ñun waa doy na ñun waa front national pour le progrès des étudiants du Sénégal problème yi ñu liste sànq état du Sénégal su si jurul ay saafara diggante tey suba balaa marché bi di ñëw gisuñu lu ñuy teree def marché bi le vendredi prochain à partir de 15 heures jógee fi nga xamante ne mooy euh, la grande porte de l'UCAD avec comme de chute devant le ministère de la culture le président de la république maanaam son excellence monsieur Macky Sall njiitu réew mi waay waay mënul confiner li nga xamante ni mooy les libertés démocratiques sañ-sañ bu citoyen bi am pour jug wane nakaram ak métitam ci réew mi te confiné wul li nga xamante ni euh, à cause te confinement boobu daf ko teg ci prétexte que ni yàlla a virus corona euh, yàlla a le virus du corona alors que yaa a d'autres virus yoo xamante ne tey ñoo fi jiitu corona te ba léegi kenn saafarawu ko bokk na ci virus yooyu la mooy spoliation foncière bi coow bi am ci wàllum suuf. ñuy jaay doole baykat yi nangu seeni suuf di ko jébbal ay privé bokk na ci virus yooyu le lu ñuy wax népotisme di recruter ñi nga xamante ni sa xeet kese la bàyyi ñi nga xamante ni ñoo gën a yeyoo recrutement ci wàllum emploi des jeunes bokk na ci virus yooyu le li nga xamante ni mooy dàq bu ñuy dàq étudiants yi te teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon respecté wuñu benn texte parce que pour nga dàq étudiant foog mu def benn niveau ñaari yoon ci la ko système bi di soog a mën a rejeter waaye étudiant bu ñu orienté à l'UVS joxoo ko uti de travail joxoo ko machine joxoo ko clé de connexion dàkk nga ko d'une manière indirecte étudiant boo orienté dans le privé fayoo établissement privé yi ba tey ñu dàkk leen amatuñu accès ci salle de euh, ci seen salle de classe yi dàkk nga ko étudiant bu am bagam. depuis juillet 2019 ba ñu ngi ci août 2020 orienté woo ko ba léegi dàq nga ko donc virus loolu virus la boo xamante ne war na koo mën a confisquer moom tamit bokk na tamit ci virus yi nga xamante ne Macky Sall war na ko mën a confi confiner muy piétinement bi nga xamante ne maanaam salfaañe bu ñuy salfaañe àq ak yelleefu liggéeyukat yi wax naa ko sànq muy ABS PCC yi entre autres ñooñu ñëpp nga xamante ne tey seen ak ak seen yelleef salfaañe nañ ko bokk na ci virus yu yi Sall war a confiner moom tamit mooy la gestion opaque des communes yorin bi nga xamante ne euh, communes yi ñu ngi koy yor alalu askan bi loolu lu ñu war a confiner la euh, la la war a doon waaye tamit bokk na ci lu ñu war a confiner agression salfaañe li nga xamante ne mooy suñu environnement maanaam suñu nekkaan bokk na ci forêt classée de Mbao bi nga xamante ne ñu ngi bëgg a décla euh, déclassifier dix hectares ci biir forêt de Mbao bi waaye tamit bokk na ci la bande des filao bi nga xamante ne ñu ngi koy caxat caxatee fu mu toll nii mooy virus yi nga xamante ne Macky Sall waroon na ko mën a confiner laataa muy confiner la liberté les libertés des des gens pour mën leen a empêcher ñu mën a def li nga xamante ne mooy seen i. manifestation comme nu ko consti comme nu leen ko constitution bi maye moo tax ñu ngi dénoncé ci fu dénonciation yem li nga xamante ni mooy violence bi nga xamante ni ñu ngi koy exercer ci ñun ñoo lànk aar lu ñu bokk rawatina suñu camarade yi ñu yebaloon le di passé pour ñu dem déposer li nga xamante ne mooy lettre d'information bi parce que ñu ngi leen doon toppee comme rassemblement barki Demba Ndiaye gis nañ ci famille présidentielle ñu doon def seen xew ñu ci bëri ci ñoom takkuñu sax masque loolu rassemblement mënu ko weesu nañu bàyyi tappale bu ñu nekkee ci réew mi barki Demba Ndiaye gis nañ fi le ministre du commerce Assome Diatta mu def fi meeting bu rëy ci benn salle boo xamante ne lu mu néew néew rek 500 personnes ñu ngi fa woon toog kon nañu bàyyi intimidation bi. nañu bàyyi euh, euh, li nga xamante ni mooy violation bu ñuy teg ci suñu ndodd ñun te à partir d'aujourd'hui ñu ngi koy wax nous nous prenons l'opinion national et international à témoin que ñun dootuñu nangooti ñu ñuy intimider à ce point dootuñu nangooti ñuy acharné wu suñu kaw à point dootu ñu nangooti ñuy salfaañi suñu àq ak suñu yelleef parce que suñu camarades yu demoon la leen di passé lenn moo nekkoon seen devoir dem déposer pare dem ñibbi waaye moment bu ñu déposer génn. police acharné wu seen kaw d'une manière brutale violenté leen ba pare jël ki nga xamante ne moo ciy gii Marius Sagna yóbbu ci lu tegul fenn à 18h ñu ne ko gisuñu lu ñu lay toppee bàyyi waat ko mu ñibbi loolu dootuñu ko nangooti tey dootuñu ko nangooti ëllëg waaye aussi également ñu ngi exprimer di wane suñu solidarité suñu ànd ak di féddale encore une fois suñu kóolit suñu kóolute ak suñu. solidarité du manière général ci suñ ñi nga xamante ne mooy suñu compatriotes journalistes yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen encourager ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi koy des ci réew mi waaye ñu ngi ñawlu di mettitlu ba fu lu yem li nga xamante ne policiers yi ñu ngi leen koy def te ñu ngi koy seetlu te mi ngi bëgg a yàgg saay su affrontement amee entre ñun ak policiers yi suñu paree journalistes yi nañ koy sippi nangu seeni caméra nangu seeni i téléphone confisqué ko te ñoom seen liggéey lañ doon nekk di def donc violation yooyu nga xamante ne nguuru Macky sàll mi ngi koy teg ci ñun ñi nga xamante ne ñooy combattant de la de pour la de la liberté waaye tamit di ko teg ci journalistes yi nga xamante ne seen liggéey dong la ñuy def na dakk mënutul wéy te ñu ngi leen ci encouragé bu baax a baax lii moo nekkoon lu gën a fës tey ci conférence de presse bi waaye bokk na ci ñu signé ci ñu toog. bokk ci biir déclaration bi ñu signé déclaration bi collectif yi may bëgg lim union du monde rural mouvement euh, des étudiants machine pour tous pour l'UVS cercle des étudiants orientés dans le privé le collectif des bacheliers non orientés le collectif des étudiants euh, de l'ISEP de Diamniadio le collectif des étudiants victimes de AFUT Canada le collectif des animateurs culturels le collectif des licenciés de l'autoroute à péage Rendo Bosea collectif des travailleurs de de ABS de ABS collectif des travailleurs de PCCI collectif des victimes de euh, Kinyabour Kinyabour 2 collectif des victimes de Guéréo collectif des victimes de Gadaye collectif euh, de l'union des jeunes réformistes de la zone nord collectif des habitants de Terme Nord plateforme plateforme non collectif pour le pour la défense des intérêts de Djilakh collectif pour la protection des terres de Bambey collectif des habitants de Kër Samba kan plateforme pour le développement durable de Mbao collectif des des maraîchers euh, de Wéeruwaay aar lu ñu bokk ñoo lànk ak doy na mais aussi également le Front national pour le progrès des étudiants du Sénégal